bien woy taskuti xibaar hibari di nuyu tamit euh, ñëpp ñi nga xam ñi ngi teewlu ci internet bi ak euh, ñi déglu fépp ci àdduna bi tay muy le 23 mai yana a marre woote ci QGM conférence de presse bi pour waxtan ci ñetti poñ poñ bi ci ñëk moy né ñun ñëpp dañoo constaté benn insécurité bu am ci dëkk bi bu jéggi dayoo insécurité boobu noonu gis nañ ne ay agression ay vol ay assassinat yoo xamante ne mi ngi daw ci internet bi nga xam ne xale yu ndaw yaa koy gis mag ñaa koy gis ay images yu choquantes mooy comme femme bi ñu rey ki negay wala it ki nga xamante ne moom moo di Omar Diop ñu reye ko ci VDN 3 bi mu it beneen infrastructure bu ñu tabax bu wuyuwul ci li ñuy xaar ci mbirum kaaraange parce que it tabax infrastructure bu mel ni ay tali te amul li làmp yu ko leeral bu yenn heure jotee doomu sénégalais yi mënuñu fa jaar kon mu bokk ci poñ yi ñuy ñaawul

moy manam lu jëm ci ay dragon auto buy sotti ndox tenue yu policier yi pour manifestation manam mbirum état policier lam ci mën ci investir ko ak out ko ci ay kay lu toll ne fatal ay ni ci def ko ci pour assurer sécurité citoyen Ben benn rek ñaar fukki junni lay jar daanaka ñu yor ci ay junni duñ ko génn lukk lu dul activiste woote nañ opposition bi woote nañ syndicat yi woote nañ kon ñoom ci loolu dong lañ nekk boobu ba léegi bàyyi sénégalais yi ñu nërmelu ci njàqare nërmelu ci jafe-jafe nërmelu ci ñàkk kaaraange ndax amuñu ko leen toppatoo amuñu ku leen wallu amuñu lu leen wuutu amuñu fenn fu ñu mën a dem lu dul ne jàkkaarloog ay sàmba boy ay defkat yoo xamante ne nii kuñ ci jàkkaar loolu maanaam yàlla na la yàlla yërëm beneen bi mooy li gën a garaaw dañoo jàpp ne bokk na ci li jëmmal loolee ci lu jëmmal jafe-jafe yooyee poñ bi ci njëkk mooy Sénégal benn sénégalais ne à mesure wax ñu naka la ñuy defee grâce présidentielle da nga xëy rek benn criminel boo xam ne ñëpp xam nañ ko wala def na lu ne ci dëkk bi rey na sax nit ñu gracier ko baal ko bàyyi waat ko ci société bi mu ñëw kenn xamul ci ban critère lañ ko teg kenn wóolu frontières yi mel ni Càppa Yaasin ku mu neex dugg nu mu la neex nga duggee amul benn contrôle Sénégal réewu teraanga la dëgg la naam waaye nañ saytu xool kan kuy dugg noo duggee ak fooy duggee beneen poñ bi bi ñu ci ëppal solo ñun a ne lu ci upp dañoo Antoine Félix diom ci tekil ay tankam parce que dafa parce que dafa bu ko deful Macky ci na jël responsabilité am ko ci poste bam ko tek parce que dafa ministre de l'intérieur bo xamné bi nga ñëwé ci la réew mi am insécurité assurer la sécurité des citoyens et des biens mooy wane ne yow mii da fay faillir Sénégal dañ fi constaté xeetum drogue bi gën a bon yàmbaa ji daf fi gën a tar am na yu xale yi di jëfandikoo ci buntu école yi dañ koy jaayee muy Jakarta sangara buy jar 300 francs ay jaaykatu cigarette ak sangara Jakarta ci buntu l'école yi lañu nekk soo génnee guddi gi nga gis lu ñuy woowee volet suñu doom yaa ngi koy naan suñu frère yaa ngi koy naan muy ay ante amphétamine yoo xamante ne nii ñu ngi koy jëfandikoo ci dëkk bi. mi ngi lore mi ngi lor askanu Sénégal lan mooy liggéeyu ministre de l'Intérieur. intérieur le nez au yow mënoo contrôler càmbar saytu li nga xamante ni mooy lor askanu Sénégal kon sàkku nañ ci moom réew bu am fulla bu boulet, am développement bu Yakar avancé bu Boulet buñ la ci poste bu toll ministre de l'Intérieur. So soo matalul da ngay tekki sa nomba tànk bàyyi xam ne mënuloo keneen ñëw boo ko deful kala fa tabb na jël responsabilité am tebbi la fa loolu ñu ngi koy wax sàkku nañ ko di wax que ne ñi ngi ñaan ñu renforcer takk der yi renforcer police bi may leen plus de doole ak plus d'équipement xoolaat seen salaire yi parce que taxaw ci tali di laaj ay ñaar dërëm ak ñetti dërëm salaire yi doyul moo ko indi kon bu ñu leen deferee li ñuy woowee yokk seeni salaire parce que ñoom it ay sénégalais lañ yàgg nañ fay dégg bu njëkkaan nek policier wala nek professeur da nga daan sawar ci nek ko parce que vocation la won mais jamono ji neexul salaire doyul amul ay avantage amul lenn luñu ñu leen defal kenn du leen kenn du leen neexal te bës bu jot nga dégg ñu naan neexal nañ ay jabaru magistrat ki ay jabaru ambassadeur yu ñak fayda di lekk suñu xaliss bayyi policier yi nonu ñu toog amuñ tenue yu baax amuñ matériel bu baax

Nous devons ay les citoyens yu gagner leur vie ngeen recruter leen ci police bi defal une formation ba pour ñu une police de proximité Nous sommes nañu juróomi fan yii am na ay jéego forum yaa gendarmerie police takaw mais si mu fa te manque d'effectifs, bi li ko indi a recruter parce que les les priorités de Macky Sall ak nguuram sont ailleurs que d'assurer la sécurité des citoyens loolu tamit que nañ ko ñi ngi pour que la police puisse faire def bu laissez syndicat il faut que police un syndicat parce que la police pas amul syndicat pour mën revendiquer ay jafe-jafeem kaasal wax ñu ñun ñu xam ko dégg ko faire. du donc seul mbir nga du police ne fi amul syndicat beneen bi États-Unis wala àdduna bi 911.

bu la ay samba booy dogalee kan ngay woo soo génnee téléphone ba ñoom jël nañ ko agressé nañ ko nangu nañ ko kon war nañ mën a def benn numéro si bu yomb 111 la moo xam wala 000 la ba nga xamante ne citoyen bi dina ci mën a sikkandiku pour mën a woote wallu ci lu mu gën a gaaw te bu coupé ñu mun koo àdd wala fekk fa mu nekk localiser ko parce que am nañ matériel mat yi am nga matériel boo seytoo topp ñu ñun ñii yenn saa yi nga toog événement war a am nga yëg ne ñu ngi lay topp ñu ngi lay déglu ñu ngi déglu politiciens yi ñu ngi déglu opposition bi kon bu baax am ngeen moyen yu ngeen surveiller am ngeen moyen yu ngeen toppee askan bi am ngeen moyen yu ngeen def moyen yooyu na ngeen jël def ko ci répression def ko ci toroxal ak xoqatal def leen ko ci protéger askan bi loolu lañ leen di saas beneen ba ca topp mooy ne dañ bëggum am benn commission bu ngeen bu ngeen teg buy saytu mbirum grâce naka lay parce que grâce ça il faut que ñu saytu ko mbirum grâce commission bo xamné nous kurel bu ñu bu saytu kan lañ wara gracier ak kan lañ warul gracier ba ca moy ñi ngi ñaan askan yi ci police pour mu def bu Samba Boy bu parce que la police c'est les populations population pour sa propre sécurité boo xamee samba boy wala def sa gox boole ko boole leen samba boy yi boole leen jaaykatu yàmbaay yi ci gox yi boole leen fàqmaan yeeg defkatu lu bon yi ci koñ yi parce que loolu tamit daf ci am solo mu munuñ protéger defkat ci suñu ay koñ nañ fexe ba ñooñu ñu bàyyi lañ ci def te loolu population yi rek ñoo ci mën a adhérer pour jàppale ci force yi ñu mun koo mun a def waaye dafa am lu ñuy woowee rôlu gox yeeg goxaat yi muy mais ñu tàmbu bes yeen mairie ñu leen di ñaan ngeen sasso ñaari mbir bi édifice wala jardin public wala lu ci sont doon lo xamné tabax nañ ko ñu abandonné ko wala muy ay kër yi gis ne waga yi ñu koy il faut que nous rendre ces ces endroits vivables viables pour que nit ñi di fa di dem xam nga tabax ay pont amul sécurité amul dara amul làmp kenn mënu fa dem guddi gi wóorul boo fa jaaree sa bakkan mu ngi ci xottu gerte kon ñu leen di ñaan yéen ñi nga xamante ne yéen la ñu fal bees ci mairie yi ngeen récupérer ces endroits là def fa ay fleur def fa ay làmp def fa ay banc askan bi di fa mun munti dem ba nga xamante ne nii defkatu lu bon yi fàqmaan yee xeet googu bi fa mën a fi dem loolu bokk na ci sécurité waaye beneen bi mooy leeral leen mbedd yi taal leen lampi mbedd yi li laa war a sóol yi leen lampi mbedd yi ci gox yeeg goxaat yi loolu mooy tax sécurité mën a am ci mim

suba bëgg di jot di ngi saaga nit ñi di leen waxal yu ñaaw di leen xas di leen dénigré dara du leen ci fekk waaye yow boo àndut ak ci sàll ñeex mi am na cere ji am na ñeex ñu ne la xuus yóbbu bëkk ci mujj ñaar sax laay wax ñu ci mujj muy gas Salvador fële ca Ndar dañ koy jaay doole dañ koy jaay doole ba ñu ngi nii nar ko cee tëj juróom benn weer yoo xamante ni benn weer bi dana ko tëdd ci biir kaso yi waaye Cheikh Omar Diagne lan la wax lu keneen waxul lan la def lu keneen deful def na ci kaso bi 40 jours loolu la ko ëpp bàyyi leen jàmbur bi mu génn jëm ngeen sax yàq deram ci biir di génne ay vidéo am kon justice bi dafa nekk justice boo xam ne dafay sooxee soo farul fii yat bi dal sa kaw soo faree fële yaa ngi yaataa yumbe kon ñu ngi exiger ñu libéré ñaari doomu Sénégal yooyu ñu dem doxi seeni soxla parce que jàpp bi leen jàpp teguñ ko ci dara lu ca seen coobare bopp ak ca la leen neex poñ bi ci mujj nag muy contentieux bi am ci laataa ñoo dégg na élection yi dégg nañ ci lu ne ay liste yu am problème bii wala bële ay liste yu am jafe-jafe muy bii wala bële jafe-jafe yi nag bëri na ñuy wax ci mbirum parité mooy maanaam jigéen ñi ak góor ñi ndax nañ ko defee limba am na ni mu war a amee ñeneen yeneen yi ñu ngi naan nombre yañ joxe ci ay parrainage dafa bëri waaye rek dafa position depuis 2015 mooy taxaw di xeex parrainage parce que ñu parrainage encore une fois mais parrainage bii Macky Sall di def maquillage boobu la ñu bi nga d'accord fait. ci amuñ ci consensus xamuñu fait. yeeg yi daf ko fait pour wala filtrer ñam bëggul ñu ci élections yi ñun ànduñu ca xeex ko ak énergie bu ne ànd ceeg suñu yeneen ñi nawle yoo xam ne ñu ngi ci société civile bi ak ñi xam ne ñu ngi ci biir wàllum politique bi kon loole moo jur tey jii brouhaha mooy jafe-jafe bii lëndëm lëndëm bii ñu gis ci affaire liste yi waaye mouvement bu mel ne Y'en a marre comme askan bii fi ne nga xam ne dañuy taataan rek information yi autorités yi ci compétente waxaguñ ca dañu dégg ci liste yi borom liste yi ñoom ñoo ci àddoogum

donc euh, mu japp ni vidéo yoyu waru don ay image ñu wara gis fi ci réew mi di wax rek ni malheureusement bu euh, sécurité publique bu état fayiree ci mission bi nga xamanteni mom la am ci euh sam karangé wu sénégalais yi citoyens yi que li ci am yëpp ñukoy gis ma ngi gis démb ben vidéo kenn ku dugg ci ben multi service ñëw taxaw di wax ak gérante bi ba ci yàgg génnee benn jaase et heureusement fekk na buntu yi ñu ngi tëju mënu ko def dara bi soxna si appuyer alarme bi mu daw génn donc ñu gis yu mel noonu ay image yu fasanti donc yooyu bu dee état taxawu ci ba dalal citoyens yi mu won leen ni man maay état man maa am rôle lu sàmm seen kaaraange et mun ngeen tëdd nelaw te du ngeen am lenn lu ngeen tiit mun ngeen génn liggéey du ngeen am lenn lu ngeen di tiit mun ngeen génn di dem doxi seeni soxla ak waxtu bu ne te du ngeen am lenn lu ngeen di kii bu dee état dafa lajj ci loolu rek l'un des l'un des risques mooy que citoyens yi ñuy fajal seen bopp te loolu du solution donc moo tax ñuy engagé responsabilité wu état du Sénégal première chose mooy wax nañ ko ci bépp réew bi nga xamante ni respecté na ay citoyens bu réew tolloo fii li jëm ci kaaraange ñu dénk ko ministre président le gouvernement a élaboré une politique de sécurité publique ministre diko doxal bu lajjee ba citoyen teud dal nelaw ndax ti buñ ci ba citoyen commencé ci mbedd yi di di ministre bi dafa wara démissionner Il dee respecter les fulla fayda exiger à ce que Félix Antoine Djom.

justice populaire warul am justice populaire du lu bax ci réew parce que justice populaire ci ngay gis lélé nit mere nit rek yuuxoo ko sàccee nit ñu ñëw dóor ko ba ray ko dóor ko ba gaañ ko lolu baxu ci réew ci bép réew bi mu am ay yenn règlement de compte ak yenen ak yenen lay indi lolu baxu ci réew balaa yëf yi voilà balaa yëf yi gis nañu Burkina Faso bu ngeen xolé les Koglowego Koglowego yi c'était ça à la base ay milices yi nga xamanteni dañuy yu nekk ci quartier yi nekk ci village yi di ko def au départ état bi di ci noppi mais dem nañ ba léegi dafa jéggi dayoo coglowego yi ay milices privées la yi nga xamante ni léegi politiciens yi ak état bi sax dañ leen di recruter pour que ñuy dem di dal ci kaw ay citoyens donc loolu dañ ko war a éviter gis nañu fi Côte d'Ivoire gis nañ fi feneen ak feneen fi nga xamante ni yenn situation yu jéggi dayo yi am na fa li ko lal parfois loolu la on a vu les microbes donc il faut que état bi mu jël ay responsabilités mu am lecture pour que nous mën faire saafara sécurité wu sénégalais et que justice populaire soit mu parce que du lu baax ah, dénonciation principe la euh, fépp ci àdduna police police su réew mënul évoluer tant que nekkut en collaboration en partenariat avec les citoyens le principe la ci bu fekkente ni au Sénégal dafa am ay dysfonctionnement yu jëm ci yooyu c'est à la police nationale c'est aux autorités yi nga xamante sécurité publique ñoom ñoo ko ŋànk ñoom ñoo ko mais principaux dénonciation qui ci bépp réew bi nga xamante police dina am yenn jéego yuñ ci def en dafa am solo maintenant am na leneen li nga aussi dañ ko ciy wax mooy rôle perception bi citoyen yi am ci seen police dañuy ça titre dem commissariat dañuy titre contacter police nationale pour que yenn ñu mën leen ko djébal ci ay information yi nga xamanteni dina leen jëriñ parce que suñu police gis ngeen ci répression bi ci parfois ñenn ci policiers yi yi ñuy am vis-à-vis des citoyens même bu dee du ñom ñëpp day tax ba citoyens yi lien bobu wara am synergie bi wara am ak seeni force de sécurité parfois du am deug la waw di nga gis ñu bari ñi nga xamanteni lolu bokku na ci manifestation wu suñu jangoro justice

malheureusement yéen sax war ngeen ko xam féppay metti Sénégal fo laal fu ne mu ngi metti donc tey di nga wax ci lii suba nga wax ci leneen wax mais mënuñu daj lepp sax voilà donc euh, mais li ñu war en tant que mouvement citoyen saay su ne dinañ ko def bu soobee. problème mu ASP yi li loolu li ñu war a wax ci loolu mooy il est effectif u police moom dañu ko war a yokk à la kulliyaal parce que suñu effectif u police mu ngi à quelque chose comme 15000 voire 16000. Euh, élément yi nga force de police qui la 17 18 millions d'habitants presque au Sénégal donc il faut que nous yokk effectif yi ñu joxaat leen yi nga dinañ assurer sécurité publique yokk effectif police nak du jël ay militants qui parti au pouvoir dressé en milice par centaines, par milliers ñuy dem di à ay citoyens tey euh, nous mu tuddati nervi yi nga xamante ni ñëpp jooy nañ ko même presse bi léeg la ñu jël dal seen kaw te ci police dañ leen jël ñu recruter leen surtout après les événements de mars dernier mu gën a vous pensez que ñi nga xamante ni tey dañu encagoulé wu 15 éléments de police ñu dem jël ay activistes commissariat de police yóbbu leen ci biir oto di leen torturer sànni leen un peu partout vous pensez que nous ils font partie de la police républicaine vous pensez que nous beaucoup nañu ci policiers yi nga xamante ni Sénégal nous nañ leen ndamoo ñu am formation bi ci war di def seen liggéey ni mu waree mais non dañuy recruter ñi nga xamante clientélisme politique moo ko pour dal ci kaw yenn citoyens yi moo ils sont ils ont infiltré suñu police bu honorable bi nga xamante ni moom la am par centaine par milliers ñooñu ASP yi ñoo leen ëpp mérite parce que ASP yi suñuy frères lañu c'est des jeunes qui sont dans les quartiers l'idée à la base mooy ñu recruter leen pour que ñu mën a doon police de proximité bi nga xamante ci suñuy koñ la ñuy yeewoo ak ñoom suñuy frère lañu suñuy cousin lañu pour que ñu mën a servir d'interface entre la police ak citoyen ñu mëna donc ASP sen statut buñ ko réglementé ñu jox leen salaire yu baax ñu jox leen bu renforcer dans la formation plutôt que 50 000 ñu leen di jox ba gis ngeen ASP ci tali bi di manifester frères policiers sax ci commissariat yi di leen dóor di leen boom ñu leen di di juste parce que droit la ñu nous les renforçons renforcer comme nous ils peuvent jouer un rôle important en termes de police de proximité Nous dénonciation yi ñuy wax ak parce que tu sont anticiper pour que mbirum sécurité bi mu donc oui ASPI yi renforcer recruter pour ñun nous am solo gestion sécurité au Sénégal mon question déjà c'était est-ce que vous n'avez ASP un pays d'ajouter est-ce que vous n'avez un problème pour l'administration nous nous pensons que le problème police manque d'équipement et manque de ressources humaines c'est un choix en fait choix où une politique Nous, la orienté la stratégie de la politique de ko les répression mais pas pour protéger les populations Vous nous voulez nous répartir les policiers les forces de l'ordre et de sécurité au niveau de ce pays là tu te rends compte que finalement c'est une option c'est un choix

moy que ni jël police bañ leen jox les ressources wala boog bañ a recruter recrutement bu jaar yoon wala régulariser les ASP donc bu ñu leen régulariser amul benn impact bu ngi def tey ci euh, ci charge amul parce que boo bari na li nga xamantene bi état jël na ko en terme de charge muy ci ay ay ay personnels xam daf na de manière anarchique de manière désordonnée bo xamné c'est tout simplement clientéliste et ils sont inéligibles et que coalition bi yone may na leen possibilité pour que ñu mën ñëw ñu changer ko nous leen accordé pas par parlon ne lepp sans exclusive muy opposition du pouvoir et beneen bi nga ñenn société civile bi notamment suñu doyen on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord sur le fait que nous bëggu ne ni yenn coalition yi bu dé dañu def yenn ci liste yi nous ñu ni mu wara démé ba ñu euh, écarter leen qu'il faut que nous bokk ci ay élections parce que mënuñu envisager ay élections sans eux pour man loolu c'est pas du respect pour les Sénégalais la loi c'est la loi ñi nga xamanteni dañuy jébbal kaddu di naan yenn coalition yi bu dee ni ñu doxalee mbir yi doxul ba ñu recevoir ñu seeni liste que dañuy wara a toxal élection yi c'est pas du respect pour les Sénégalais on doit respecter les Sénégalais et les autres Vous devez amener coalition une ñu parce que parce que conformé à la loi par exemple sur la parité ba recevoir une liste Nous ne par la force de nous parce que nous bokkul xawma la Nous, lan nak muy opposition di que la loi s'applique et nous on veillera à ça nous on veillera à ça lolu nous deug ku waxul deug wax fan Sénégal kenn nous que ce soit classe politique, société civile. Le Sénégal a existé avant nous et nous partirons Sénégal de demeurer. Donc on va rester vigilant sur ça, on va rester ferme sur les principes. Avec les Sénégalais, bi nga xamanteni japp nga ni principe lañu wara Et il faudra vraiment compter sur Yann Amar pour ça. Nañ ko nañ ko wax. On va être très vigilant. Fi ñu wax classe politique mais on va voir les listes vont être affichées li ci war nañ ko parler. du am il faut respecter les Sénégalais et il faut respecter la totalité de la classe politique Elle est très traitée à d'égale dignité le moins donc lii dinañ ci ñëwaat ñu ngi le 31 les listes vont être publiées conseil constitutionnel aussi nous pouvons mettre face à ses responsabilités merci beaucoup